ci euh, CV yi nga xame ni bëri ngeen ci duñu ko yónnee dañ ci ànd léegi nii ak ay dara muy jóg job oui Pape Cheikh donc euh, nous avons deux CV aujourd'hui le CV de Abdoulaye Ba et de Sitan euh, Condé. Nous démarrons justement avec euh, celui de Abdoulaye Ba euh, qui est étudiant donc niveau master master 1 spécialisé en ressources humaines qui est la recherche donc d'une belle opportunité dans le domaine des ressources humaines notamment. Euh, pour son dernier diplôme, c'est un master 1 euh, donc MBA en Master of, Admi of Business Administration en ressources humaines. pour ses expériences professionnelles. Du 4 mars 2014 au 3 septembre 2014, euh, il a travaillé à la Sonatel en tant que documentariste, archiviste. Octobre 2013 à décembre 2013, Il a travaillé au niveau de EcoBank euh, en tant que prestataire de services département domestique banque euh, pour les missions effectuées. Donc, il a participé au projet de distribution des cartes à puces. Pour son activité principale, il était chargé de l'opération de saisie et de pointage client avril 2013 à août 2013. Il a également donc, euh, été stagiaire à la Sonatel département ressources humaines. Pour les missions effectuées, il a participé à la mise en œuvre des formations, il a fait le suivi des tableaux de bord de formation et pour ses activités principales, euh, donc, euh, il a une formation, rédigé les rapports d'évaluation à chaud et également constitué le dossier final de formation. Pour contacter Abdoulaye Ba, ce sera par mail à ablaye1989 toutcollé.livre.fr. Euh, nous avons aussi le CV de Sitan Condé. Sitan Condé qui a eu son dernier diplôme de 2007 à 2008, une formation en secrétariat bureautique à IBS de Kermassar. Pour ses expériences professionnelles 2009 elle a été secrétaire de, direction du cabinet de la mairie de Kermassar. 2007-2008, elle a effectué un stage en tant que secrétaire en entreprise de construction bâtiment à Pour contacter Sitan Condé, ce sera également par mail à sitanconde.gmail.com. Pape Cheikh, c'est tout ce que nous avons aujourd'hui donc euh, comme CV pour euh, nos recruteurs Inouï cette année. et je voulais juste donner euh, juste euh, euh, enfin euh, fàttali par exemple ñi nga xamante ne tey dañu nekk ay euh, employés dans des entreprises wala ñi nga xamante ne ay dirigeants lañu am am seen société ba pare jànguñu wala bu ñu jàngee seen jàng soriwul seen niveau d'étude faible am na ay certificats cours yoo xamante ne ça leur permet ñu am ay aptitudes en gestion c'est-à-dire aujourd'hui ce serait bien nga nekk chef d'entreprise sa jàng soriwul gis nañ ko fi ñu bëri am nañ fi ay exemple yu dul jeex euh, nga am équipe bu baax bu la diriger c'est bien nga dem euh, jàng tuuti parce que am na ci de formation yoo xamante ni pour liggéey la. am na ay ay certificats cours xamante ne mun nañ ko def c'est des certificats euh, par exemple préparatoires aux études de gestion ça mhm. permet wala ay CAP. comme on dit jàng du wees. exactement ouais, des ouais. certificats d'aptitude professionnelle pour ñi nga xamante ne am nañ au moins expérience aussi professionnelle. Mhm. Mhm. pour seen employabilité fi nekk ci entreprise bi ñu mën a am évolution. Euh, mën nañ dem def yenn formation cours euh, enfin xamante xamante ne dina leen permettre. ñu mën a par exemple discuter ak seen ak seen daaf. Mhm. parce que mhm. euh, loo ci koo gis rek ci entreprise bi par rapport ak métier bi muy def spécifi mhm. spécialisation la. c'est assez spécifique. donc am na yenn formation courte yoo xam ne soo ko defee ça te permet tey nga mën a discuter ak sa daaf comprendre jargon am. nga mën a discuter ak sa responsable marketing euh, xam li muy wax. et c'est très important. voilà moo gën nga diriger sa société rek toog di seetaan c'est-à-dire ku tey ji mën na la njuuy. mën na la nax ay affaires yoo xamante ne parce que xamuloo ko. Mhm. c'est toujours bien nga dem def euh, quelques euh, euh, formations pour mën a améliorer ce niveau. Mhm. c'est important et puis taalibe warta ëpp xam-xam sax sëriñ ba noppi itam jàng du wees. Mhm. Amina Poté yow taay yaa ngi def yaa ngi jàng ci école bu mag pour nekk ingénieur. waaw. waaw jàng du wees yaa ko wax. te fi ne nii ñi fi fer rek ay jàngiwaat. léegi kenn bàyyeetul bay namp di jàng. man maa ngi jàng de. yow ban école nga nekk nii. maa ngi ci école bi muy wax. <laughs> boo koofee. si ah boo koofee left wala. left left ngay koof. <laughs> nga jël Johnson bi ah. <laughs> moo jongo ma yàlla na ko yàlla lafal cat. mu nga euh, euh, koy waxal nii kii feeñ nii. moom xoola boobu yàqu bëñ. ak ah, mën a ñaawle. ma xool ree ko ma xool ree ko ree boobu yàqu bëñ. xoola lii. yaa borosu <laughs> jërëjëf euh, kon euh, ñaar ñooñu kiya ñu ngi leen di wax rek euh, bonne chance Ablaye Ba ak Sitan Condé ndax nag soxla bu teew ay nelaw faju ko mu ngoog loolu mooy bàkku jóg job bu loolu weesoo ñu waxtaan